Euh, ma fàttali ni rek tu nous reviens pour le point d'hier déjà e ñu àndandoo rek déglu li nga xamante ni moo waa ministère euh, fan la ñu toll ci Covid 19 bi ñu mhm. ñu bàyyi la nga tàmm voilà loolu 10 heures lay doon ñu fas kee naa ndax waa ministère de la santé ñu defaat point bi dañ koy defee chaque jour waaye nag xam nga ne fàttali lay doon mën nañu wax ne coronavirus gi mi ngi doog a def victime cas de décès bi njëkkaam loolu démb lañ ko confirmé ak ki nga xam ne moom mooy Pape Diouf mu mel ni kon bokkoon na si ñaar ñaar ñi nga xam ne dañoo wax ne dañu nekkoon ci kaabu bu grave nekkoon ci ay jafe-jafe ba kenn ki sax mu nekkoon sous assistance respiratoire kon moom lay war a doon ba noonee kon rek la mujjee génn àdduna démb kon nag sénégalais yi doon wax ne euh, waaw ñu sénégalais yi doon wax ne kon euh, euh, corona bi du rey nit ku ñuul wala sax corona bi amu fii tontu li ak ndey di mendaw lay doon maam si di bu fekkee baax na ñu dem ànd ak ndey di ndaw jëm ci corona bi Sénégal am cas bu njëkk soxal lu jëm ci wàllu jàngoro jàngoroy coronavirus te doomam ñàkk ci bakkanam fii ci territoire am Pape Diouf daal di génn àdduna ci hôpital Fann moom nekkoon na président olympique bu Marseille nag daal di bokk rek ci ñaari cas yu grave yi nga xamante ne nii waa ministère de la santé fan yi ñu génn rek ba ñuy def seen conférence de presse junjoon nañ ko askan wi docteur Abdoulaye Bousso sax ci ay doom mu mel ni da doon préparé ni jàngoro ji di coronavirus nag mën nañoo xaar mu egg ak ñun foo xamante ne nii fooguñu ko fa woon ndax jàngoro ni muy def ci dëkk yi jéggi na dayoo ndax ma ngay wéy di continuer di faat ay bakkan Pape Diouf mucc ci naka noonee Manu Dibango di beneen doomu Afrique boo xamante ne ni moom it dafa ñàkk bakkanam ci jàngoro ji di Covid 19 kon mu mel ni jàngoro ji mi ngi law te kenn mënulu ko dara ndax fu mu dem wane fa boppam jaaxal lool wàllu kër docteur nga xam ni rek saa su nekk muy fësal ni am na lu bëri bëri lu des ci wàllu wér-gu-yaram gi Sénégal nag mën nañu wax ni mbir yi commencé na compliqué ak cas bi ñu am di faatu Pape Diouf lii nag dafa ñëw rek nekk ab artu ci ñi nga xamante ne nii ba fii nag dañoo amoon jiixi jaaxa ci feebar bi dëgg laa am déet ni muy wàllaatee ak tamit jafe-jafe yi mën a loral doomu aadama bi mu ngoog ñu koy jaajëf ba moo Ndeye Dime Ndaw doon ñu di dikkaatal ci génn àdduna Pape Diouf muy euh, cas bu njëkk ñu am ko ci ku génn àdduna te jàngoroy coronavirus gi waral ko fii ci euh, Sénégal xam ngeen ne démb bilan bi ni ñu ko waxee mi ngi toll woon ci 97 euh, yu nga xam ne ñoom la ñu jot a testé gannaaw ba ñu leen testé ba noppi fukk ak ñett la ñu gis ne ñoo ci positif benn cas importé lañu am waaye fukk ak ñaar maanaam 12 si ay cas contact kon nag total bi mi ngi toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom 175 si ay doom doomu aadama yi nga xam ne amee nañu jàngoroy coronavirus gi ñeent fukk 40 la ñu jot a faj ba nu wér kon nag téeméer ak fanweer juróom ñoom ñoo la ñu nekk jamono ji jàngoro ji tëral leen si kanam tuuti ñu ànd ak ministère de la santé ngir nag mu gind ñu ci li nga xam ne moom mooy euh, bilan wu euh, tey ji waaye xam ngeen ne démb euh, li waraloon coow li mooy ñaari district yi fi nga xam ne moom mooy Dakar Ouest ak euh, Dakar Sud moo waraloon démb ñu def benn réunion d'urgence si ngoon si ndax dañoo gis ne jàngoro bi ni muy propagé woo fii ci ñaari district yi mu jaaxal na askan wi te état bi nag faw mu jël si ay mesures mesures yu muy doon ci kanam tuuti ñu ànd seex waa ministère de la santé ngir ñu génn ñu si conclusion seen réunion d'urgence bi waaye nag ñan ñoo dëkk Dakar Ouest ñan ñoo dëkk Dakar Sud euh, tontu li ak moo Faye maam si di bu fekkee jàppandi la district sanitaire ouest bu diwaanu dakaar mi ngi bootu ci centre de référence Philippe leen Senghor ñu ràññee ci gox yu mel ni Yoff Ngor Wakam Almadi Mermoz ak sacré kër muy diwaan yu bëri mbooloo te mboole seen bu ñu leen xayma jege na 250 000 nit yu fi yeewoo bés bu yàlla sàkk lu ni mel la ñu nemmeeku ci district sud bu Ndakaaru fii tam ñu mën fee am quartier yu bëri doomu aadama yu mel ni kolobaan Fass Gueule Tapée ak Médina dolli ci plateau mi nga xam ne bés bu yàlla sàkk la fay dem ci doomu aadama di ca daan seen doole ci wàllu koom bëri na district sud bu Dakar ëmb lu ëpp ñaar fukki junni doomu aadama ak lu tegal